Père Baba xam ci lamb ji. waaw ñaari champion dañoo indi seeni poulain waaw fi mu nekk nii gis nga feeraay booy xule daw na jël na ko est-ce que day oho benn benn daf daf ko daf koo tooñ avant daf koo tooñ avant muy réagir pour fayu mu paqueté ko bu yàgg a waaw daf koo tooñ rek mo xamul lu xew waaw dafa jek jek rek gis bopam ci suuf. lamb ko gëna bandi ne woon moy dal way way ko al ah, waaw waaw. naa lamb ci gëna mo tax kon bandi bi. bandi moy bandi bi na moy to al kadi ku ja. voilà no no no non. feer no feray na jóg. na jog wa dañ ko togn bala mo xalat koo wara wa ñu pakete ko ñu pakete ko mu jek tak ma na muñ. te xam ne nag noonu la. combat de la soirée ci digënté na la bay Fall ak wo Jambar mu nek lamb jo xamanteni ni ah, ma sha allah wax deug yalla ñu koy xaar ñu koy xaar nak yalla nañ ko ni gisee yalla jur jàmm yalla yegg ci jàmm ak salam tay yaakar na ni Père Baba. yaakar na ni ce victoire du am de. déedéet li li fi jaaragum nii fi mu nek waak na duñu dem regal na duñu dem var duñu dem var mom, fi mu nek var tay jarul var waaw fi mu nek mom suñu paré rek fu mu nek ku nek liñ. nañ nañu muñ fu mu ne waaw mu ngi ñëw xool ko li mu ñëwee xoolal ni mu ñëwee borom kànje mën a maafe bu neexulit far laa ilaaha illallaah borom kànje moo mën a maafe bu neexulit far ah, waaw wallaay ndeysaan bu la neexee nga ne xorom si saful waaye kaani gi saful macha allah day far nag kànje gi day far laay ko teg ci digg géew bi <laughs> laay doon laay ko teg ci digg géew bi di wër band benn sengoor rouge blanc di wër laay ko teg ngi wër Laye Gothé ngi wër sol benn faaru mbaam bu rouge yore waaw sol gant yi weex tey daw nekk rakku champion rakku champion kon Laye Gothé li xaar Thiès Guédiawaye sa ginnaaw xaar lan la war a doon ci yow loolu yaa ko xam du mel ni combat six cinq combats ci des six combats ci des bu naan la naan la Baye Fall jàllee day nekk day des cinq combats kon pour le moment nii six combats net moo ci des.